Euh, may sa Babou di euh, économiste boo xam ne bu ñu ràññee la euh, mu nekk ab jàngalekat tamit ci université Cheikh Anta Diop bu dakaar professeur ñoo ngi lay nuyu. waa Abdou Khadre maa ngi lay fay di la nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sa collaborateurs yi di nuyu aussi sa auditeurs yi nga xam ne ci waxtu wi ñu ngi toog di la xaar di déglu rajo bi. jërëjëf professeur fi nga xamante ni nag fi la ñuy commencé émission bi mooy actualité. ndax dafa am benn marché gré à gré boo xam ne euh, wax nañ ko ci lu jëm ci wàllum jëndum arme mu toll ci 45 milliards ci ministère bi ñu dénk wàllum environnement ndax euh, dañu njort ne wàllum euh, gré à gré li mu mën a yàq ci am réew dafa bëri te li ñuy tudd marché gré à gré ci Sénégal presque saa suñu xëyee ñu tudd ko marché gré à gré lan la mën a yàq ak lan mooy sa xalaat ci ci ci 45 milliards yooyu ñuy wax ne Euh, ministère bi ñu dénk wàllum environnement def ko see jëndoon te amul benn appel d'offre waa xam nga da nga dañuy rappeler d'abord que ne li indi rmp muy agence boo xam ne nii organe boo xam ne nii day saytu lépp lu gouvernement di jënd euh, ñu def ko appel d'offre maanaam dañ koy yéene ne ku man lii ñëwal mu ñu teg ko ci donc ay loi loolu banque mondiale moo ko imposé Sénégal bi fi Abdoulaye Wade nekkee mu nekk benn pàcc ci liñ mën a wax bon gouvernance ndax pour loolu ñoŋal alalu réew mi nga xam ne kenn par parloo du ci am léegi nag biñ tegee loolu yëpp dafa am ñoo xam ne xam naa ne euh, fa ñuy jaar seen i njuuj njaaj euh, dafa xaw yéeme mm-hmm. ndax loolu moo tax Cour des comptes moo tax nag moo tax euh, agent inspection générale d'État di jóg di saytu mhm. en général soo xoolee depuis 2012 liñ fi saytu yëpp ay njombe la mhm. malheureusement ñi fi nekk dafa mel ni li may tuddee ne da ko bandum mhm. ñu nu neen la lu ñu neex la def ba bokk na ci kon bii nga xam ne li ci njëkk yéeme mooy ministère de l'environnement ndax dañu ne xëy na su dee ne ay arme la euh, ay fetal ak ay yu noonu dañ ne armée bi kat li muy jënd xëy na nit ñu waruñ ko yëg ñu ber ko ne su boobaa mën nañ leen a euh, bàyyi ñoom ñu def benn entente entente du sax direct. mais du façon am na benn façon bu ñu ko war a nëbbee. ba nga xam ne ñun askan wi duñ ci jot. mais si yoon lay tege. mais dafay tege ci yoon. du am surfacturation. faw dañ koy rëdd. Mhm. soo ko rëddee da ngay euh, xam ne xëy na yow pàcc defal nañ la pàcc boo xam ne ni wax dëgg yàlla bëgguñu kenn xam ñaata fetal ngay jënd ak ñaata oto. Mhm. ndax armée day nëbboo mais euh, li ci gën a yéeme donc mooy ministère bi ko jënd benn. Mhm. ñaareel bi mooy société bi bi nga ko jox parce que société bi mënoo koo créer presque septembre 2021 ñu teg ci ñetti xaw ma ñeenti weer ci janvier février nga jox ko kooku xamul daanaka amul expérience bi pour jaay jaay ay armes ak yu mel noonu kon mu mel ni dañ ko judduloo société boobu uniquement pour lii mm-hmm. loolu dafay tee xel kon nag jàpp naa ne Euh, bii mooy énième fois. waaw mais mais professeur euh, dégg nga waa ji ñuy wax ne moo jëflanteeg Sénégal ci lu jëm ci wàllum arme mais soo dégloo waa ji wala niñ koy toppee xam ne tey euh, am na benn mandat d'arrêt ñu wax ne am na benn détournement 76 milliards boo xam ne moom lañ koy toppee tamit. est-ce que enquête Nigéria est-ce que benn enquête de moralité bi warutoon a am bala ngaa jëflanteeg benn entreprise. waxuma la sax enquête de moralité mais nee naa la société bi bi mu juddoo. waaw ak bi ñu koy jox marché benn la. Hmm. expérience bi ñu war a laaj normalement dañu waroon wax xëy na koo xam ne nii yàgg na jaay arme lu mat fukki at boobu. lu mu gàtt gàtt. ñu jox la ko. mais yëf yi daal dafay niru daal lu xaw a yéeme. ba nga xam ne coow lu ci juddu xaw ma dana leeri xaw ma du leeri mais dans tous les day bokk rek dañ koy dolli. ci coow yi fi am te ba tey jii nii. Euh, amagul amagul saafara. mais jàppoo bés dina ñëw mu am saafara. forcément xam nga euh, lii yéeme ci administration mooy lépp dañ koy bind. Mhm. te yëpp a ngi ci machine yi. te ministre bu demee machine yi fu nga koy bàyyi. Mhm. te du forcément ci machine ministre bi lay ne. Mhm. fi muy jaar yëpp. daanaka ñoom ñëpp dañuy am kayit bi seen i biir machine. donc pour nga topp nit génne ne lii amoon na fi loolu dafa yombu ci administration. ba nga xam ne. risque yi mooy ëllëg buñ taxawee ba war a saytu ñu ne ah nañ saytu fii saytu fee su boobaa am na loo xam ne nii ñi koy saytu dañoo xarañ faw ñu am lu ñu mën a wax loo xam ne ni xëy na mën na la dugal wala loo xam ne mën na la sauver d'accord mais mais mais professeur euh, tey sànq yaa ngi koy wax même bu doon tey par exemple tey forces armées la wala police la wala brigade des sapeurs pompiers mhm. xam na ñoom procédure bi Euh, procédure de marchés publics ñoom dañu leen see génn ci appel d'offre waaye terewul ne comme ni nga ko waxee compte oui contrat la boo xam ne dañ koy bind te aussi quantité bi danañ ko bind euh, prix unitaire bi danañ ko bind te te dafay nekk loo xam ne euh, prix bu yanu maanaa la war a doon day am cadre hmm. cadre boo xam ne nii dañ parce que newuñu leen def leen lu neex leen leen exactement waxuñu leen <laughs> def leen daal lu leen neex léegi fokk mu am rëdd hmm. ne su boobaa yéen waa armée def leen nii def leen nii mais Abdou Khadre xe xel nit ku nitee euh, nga muus tuuti nee naa la société bi doog a juddu xamuloo compétence am. dëgg la kooku benn erreur la. ñaareel bi mooy li nga wax suñu yëree kayit yi. xam ne kii ñu fi tudd. li ngay wax enquête de moralité dégg nañ coowam loolu soo ko déggul nga nga nga xool. ndax soo surfee xool ñi mu jëflanteel da xam ndax kii jub na wala jubul gis nga lii y a plus grave te ba tey euh, Big Togo Ivoirien la boo xam ne tey daanaka moo topp ci Alassane Ouattara daanaka mooy numéro 2 mhm. Big Togo boobu ñëw na fii mhm. ñu jox ko université Diamniadio. Amadou Amadou Mahtar 30 milliards lañ ko avance waa ji commencé gas fondement bi dem yoonam nañu suuf si baaxul ba tey ba sanq doo dégg ne état du Sénégal porté na ko plainte doo xam en fait finalement lu luñ séq ak ñi ñuy jëf leen teel xam nga dafa loolu dafa xaw a yomb tey nit ki dama jàpp soo ko bëggee liggéeyloo ab université moom mu yor entreprise xanaa bala ngeen a signé contrat moom dina dem saytu fañ koy def suuf sañ koy def ba xam boo gasee ñaata met ngay dem ci suuf jot jot ndox wala leneen nag leneen xanaa saytu boobu normalement <laughs> mais li gën a li gën a lu yomb mooy ñun ab tabax dong waaw tabax université nga xam ne ay classe ak i néeg la waaw yow doo ko jox waa dëkk bi waa ana CSE ana beneen bi seexoo euh, ma lan bi ana entreprise u Sénégal yi bañ ñu leen fi romb dem Ivoirien boo xam ne ni yow euh, lañ seeq nag ñoom ñoo ko xam mais Ivoirien mënuñoo dàq tabax suñ réew mi Marocain yi ñu ngi leen jox pompier bee ñu bee ñu jógee la lu ñu fa tabax ay boîte almet daanaka comme cité góor gi te cité góor gee dàq liñ defar non patriotisme économique bi amul benn ñaareel bi gaa ñi dafa mel ni jëflanteeg étranger mooy gëna nëbbatu ci ñoom ñu jëflanteeg waa réew mi kon xel faw mu tey ci ne lii marché yi ngay dégg yëpp am na problème yoo xam ne nii bis bu feeñee dana xaw a compliqué. Euh, léegi euh, professeur euh, Meissa baabu économiquement parlant tey. Mhm. su dee tey sunu nguur yi dañuy jël entreprise étrangères yi. Mhm. di leen dooleel ka entreprise nationale yi lan la mën a jural Sénégal nii gàllankoor ci lu jëm ci wàllum koom. perte bu bëree bare bëri ci façon biñ koy joxe benn. Mhm. ñaareel bi dañoo bëgg lu yomb. dañuy nguur gi. wala nguuri africain yi. waaw bëgg lu yomb mooy ab chinois bu jóge fee. ne la man mën naa laa defar autoroute à péage bindu ko itam jox la nga ne ko nangu naa mu ne la yow bu ma jox xaalis am naa banque bu ma lebal mais bor dañ koy fay. su ko defee mu ne la rëddal soo paree ma ma ne man maa ko defar yu mel noonu moo ñuy dugal ci ñu lënkaloo ak étranger ñetteel ba mooy lënkaloo ak étranger rek naan su ma ci luubalee man ak saawaay waa réew mi duñ ko yëkk mhm. kenn du xam lu ma ci am. Mhm. kon leerut baaxul <clears throat> ba pare. nguur gi perte ci xaalis bu dul jeex projet boo fi dégg mu romb milliard mënoon nañ ci am ab ambulance walla ñu taxaw ci poste de santé boo xam ne nii ndax dañuy surfacturer ah, dañuy surfacturer yenn yi ba nga xam ne lu war a jar cent milliards euh, cent milliards ñu ne la deux cent milliards parce que euh, tabaxkatu tali bi moomoon Jean euh, Lefebvre bi ñu defaree autoroute à péage Ila Touba bi 417 milliards. mais génn na leen lii. mën nañ ko def ci 200 milliards daanaka. kon da ngay gis ne doo doo comprendre daal ñun dañ ñu xëpp rek 200 milliards 400 milliards 300 milliards yoo xam ne ni yow. sa ñun ñëpp la suñu xel di tey. mais mais mais professeur bi yaa ngi wax ci autoroute sànq boo demee ci sous région bi am na autoroute yoo xam ne fam jaar moo gën a montagne euh, Sénégal ba pare ñoom ñoo ñu gën a yombale. saxaar gi soo demee Nigéria. da gis wala Côte d'Ivoire. da ngay gis ne ñoom ay presque deux cent nangam kilomètres la seen saxaar. te te matut matut li li Sénégal fay ci trente cinq kilomètres. lu waral loolu. a ah, mooy li ma loxo rek li ci lëndëm ci biir mooy copinage benn. ñaareel bi ñu noot ñu. nootaay boo xam ne nii entreprise France bu doon defar saxaar dégg naa dama ko dégg rek nag. ñu ne daa dem ba daanaka dafa noonu na tëj. Mhm. waaw su naree tëj ne ah waaye woo leen waa Sénégal waaye. soo leen wooyee ne leen ñun comme que dañoo am problème nañ commandé saxaar waaye ñu daal di commandé saxaar loo xam ne nii yow ñun peut-être mënoon nañu am saxaar boo ko gën du ma ne sax bu ko gën mais bu fa soxla bi te prix bi du egg ñett yoon wala du egg juróomi yoon. d'accord kon li am na yu sew ay sew-sew daal yoo xam ne nii il faut nga lëñtu pour xam ne lii jaadu na wala lii jaaduwul mais xel Sénégal yépp laa wax mi ngi tey. d'accord mais mais professeur dafa am loo xam ne euh, bu doon jar na réforme def ay réforme sax ñu def ko mooy bépp contrat boo xam ne dañ koy signe ci turu askanu Sénégal nga mën a dem benn site internet wala foo xam ne boo fa duggee euh, man koo xam waaye dafa mel ni ñun li ñu ump daal ci ni ñu yoree sunu alal dafa bëri. mais ñoom ñoo ko nëbb kuy jiite kay su la neexee nga ne désormais ab loi dong ngay def. waaw nañ dem assemblée. contrat bu fi gouvernement signé ti mhm. marché bu ñu fi joxati nit muy koy liggéey. Mhm. suñu xëyee fang lay def. gouvernement bi boppam mooy publier contrat bi. nga gis ko ah, waaw waaw nga gis ko su fekkente ne amul lu ñu nëbb. Ah. nga gis ko ma gis ko ana contrat pétrole yi. xam nga dañuy wax nii rek mais kenn mënu laa wax la ca biir. Mhm. donc transparence laa wax. Mhm. bu fekkente ne eh, da ngaa bëgg mu leer. lu jub lu jub. dañuy wax ne dafa war a nekk maison de verre maanaam kër goo xam ne nii euh, euh, këru këru la verre nga xam ne soo tax toog nekkee ci biti di gis li di xew ci biir loolu mooy transparence na leer mooy transparence kon nag ñoom ñi yor seen cëgal guy di doxal ñoom ñoo xam yan instrument lañ war a teg mhm. pour que affaire bi leer mais jàpp na lu war a am la mais forcément parce que tamit nag mbooloo mhm. mais leeral laaj man damaa jàpp ne euh, teraanga. weesuwul ñu tànn la ci say nawle sénégalais. gënoo fi kenn ñu lay fay weer 3 millions. wala ñenn ñi sax ñu ngi ci weer 5 millions. te loolu sax bokkut ak xëy na yenn sew-sew yi ngay am. waaw mais teraanga foofu la mën a yem nag. nga nga nga bëgg faa romb yanu kéwél yi dem dibi ko ah te moomoo ko wala wala nga yenu xaalis ba. waaw nga waaw contrôle bu ñëw na diw sàcc la. mais mais mais professeur euh, man euh, euh, keroog damaa dugg ci internet bi bind gouvernement du Sénégal def espace marché gré à mais presque structure yëpp ministère yëpp direction yëpp presque fu amul marché gré à gré presque doo ko gis. déggoo li ma la moo tax ma ne la bii bii moo mujj rek. Mhm. wante xam nga ne IGE bind na fi kayit. maa ngi fàttaliku Pape Alé Niang bi muy wax directeur kuddu bañ naan xaw ma kilo ñebbe xaw ma 4000 xaw ma. yu mel noonu xaw ma dëgg xaw ma dëgg mais rapport ba ca boppam moo épinglé supposé épengle en tout cas ay nit. Hmm. mais nañ dem tribunal ñu leeral ko te du te boobu rek bëri na fi loo xam ne nii kenn xamut pourquoi état bi ci boppam loolu la bokk président Macky Sall ci boppam ne yii dossier moom du dem tribunal maa koy téye. Hmm. loolu laa tuddee ne da ko bandum. Hmm. loolu nag dafa yàq réew. d' accord mais euh, professeur tey dafa am ay corps de contrôle yoo xam ne ñu bari dañoo jàppoon ne euh, bu ñu defee seen liggéey dëggantaan danañu mën a yaxanal li nga xam ne mooy alalu réew mi mooy inspection générale d' ay cour de comptes. ak euh, OFNAC ay ARMP mais yow li nga tudd sax di nag ñoom dañuy def seen liggéey euh, ndax lu jëm ci 94 milliards yi OFNAC ñoom def nañ seen enquête def seen rapport bind ne plaignant bi. li nga xam ne tey moom la wax Mamour Diallo ñoom dañ koy confirmer ne dëgg la ne escroquerie am na ci association de malfaiteurs détournement de deniers publics jël dossier bi jébbal ko procureur jébbal ko njiit réew waaye kooku ñu doon tuumaal sax jël nañ ko yóbbu ko ci beneen direction loolu fan la jëmee réew mi. waa xam nga mauvaise gestion rek mal gouvernance rek mais soo gisee euh, ni sunu ñoom ñoo ko def nag soo gisee niñ tëralee justice bi ba nga xam ne lépp dossier bu laal état ak waayu état daanaka juge mënul tëb tëb addu ci. fekk président daanaka ci boppam wala ministre am ci boppam néewul juge jàppal kii donc joxuñu ñu bi juge yi liberté boo xam ne nii li gënoon la leer dañ naan waa OFNAC yéen ñuy contrôlé wala waaye ay IG yéen ñuy contrôlé ku ci contrôlé ba pare. kayit bi kayit bi yóbbu ko directement tribunal. léegi nag su boobaa juge bi mooy xool. Mm. ndax man lii ñu ma jox jar na topp nit. Mm. wala jarul topp nit. parce que il n'est pas dit que ne forcément suñ contrôlé dañ lay jàpp. am na ñu jub. Mhm. ci ñoom am na ñu jub am na ñoo xam ne ni kenn mosu leen a dégg ci njombe. Mhm. kon ñoom ñi nga xam ne ñoo yor yoon wi. Mhm. yor justice. ñoo waroon a defaat euh, daanaka loi rek comme li ñu doon wax léegi. ne léegi désormais yéen ñii contrôlé. Macky su ko neexoon par Macky Sall su ko neexoon mu ne yéen ñii contrôlé bu ma kenn jox kayit. kayit bi daal su paree jox leen ko tribunal léegi nag tribunal moo moo xam. que su baaxee mu ne alhamdulillah amul problème kii jarul woo su amee problème mu woo waa tax léeg-léeg sax du doon ak càcc mais mën naa sax doon jum njumte mais mais li yoon wax mën nga ci juum mm-hmm. même soo sàccut dañ naan la ah lii na góor def mu nga xam ne ñoom danañ xam ne sax ci biir xëy na ak càcc amu ci donc mm-hmm. il faut que ñu nangu te ko muy jiit euh, gouvernance mënu ma ko teg ci olof mooy en tout cas nit ñi doxale voilà nit ñi yore réew ci domaine yëpp mm-hmm. ci démocratie ni ñu dañoo war am seen liberté di manifester mm-hmm. soo jëlee xaalis bi di gouvernance financière mm-hmm. xaalis boobu dañ ko war di leeral organe di ko leeral tribunal di ko leeral ku luubal ñu jàpp la ak démo euh, ci ci ci ci koom euh, ni ñu koy saytoo et cetera investissement yëpp loolu lépp dafa waroon ñu tëgg ko mu mu mu mu leer mais bon fekkente ne nag euh, yi ñoom ñi yor yor yëf yi ah li ñuy wax ñun ñoo ñoom ñoo ñu gën a xam ah. mais soo waxee ñu ne ñu bu leen leen faale <laughs> nekk ci lañ nekk ah. ah xëy na dafa neex ci ñoom. d'accord jërëjëf euh, professeur sa baabu mbokk yi muy économiste moom la ñu invité tey ci euh, rajo Rewmi FM mais professeur Sànq yaa ngi wax ci entreprise nationale et entreprise étrangère yi bu dee tey euh, entreprise étrangère yi la ñu dooleel te gis nañ sax ne entreprise étrangère yi nga xam ne tey ñoo samp Sénégal bëri na fa ay emploi sénégalais yoo xam ne dañu fay faral di am ay jafe-jafe mm-hmm. léeg-léeg nga dégg ko mm-hmm. waaye ci lu jëm ci wàllum emploi bu dee suñu entreprise nationale yi euh, doolee lu ñu leen fan yi jàll sax ci conseil mi dégg naa président ne euh, gouvernement bi il faut benn lëkkaloo euh, relation entre état secteur privé ngir xaw ma ñu dooleel leen mais bu dee tey doolee lu ñu leen ba ñu entreprise nationale yi nësax lan lay yàqal ndaw ñi war a am liggéey waa xam nga réew mi <coughs> très souvent li ñu fi gën a jàmbat sax sooy xool mooy pauvreté te pauvreté maanaam ndool goo ndool ndool foo ko dégg rek c'est que waaja daal liggéeyut kuy liggéey am astuut man nga ñàkk benn bis dépense mais ndooloo ndóol gi ñàkk liggéey chômage bi xale yi dafa baree bari ba nga xam ne daanaka léegi kër goo dugg benn paafay liggéey xale yëpp dañuy nelaw wala ñu génn doxi ba nga xam ne kon su fekkente ne am na lu ñu appliqué ñu tudde ko patriotisme économique mais état bi ci boppam su lënkaloo ak i banque ndax yenn léeg entreprise duñu am moyen yi mais état dox day dox loolu garantie garantie ci ay banque yoo xam ne nii da lay woon ne man état maa koy liggéeyloo mhm. lii ma koy liggéeyloo autoroute à péage la mhm. maa ko war a fay 400 milliards mhm. fay bi nii laa koy tëralee këyit woowu su ko joxee banque banque bi di mën di génne su amul lépp tout de suite it chantier bi def 3 ans 4 ans banque bi mën na na chaque année man naa ci xëppali xëppali xëppali su fekkente ne dem nañ ba technologie bi maanaam façon liggéey bi metti na te munuñu ko mais su boobaa lënkaloo ko chinois wala lënkaloo ko faran ab tubaab loolu kenn bañu ko mais réew yu baree baree bari soo demee tey Qatar soo fa dëkku soo dul euh, doomu dëkk ba nga yor sa alal ñëw ne fii de man Qatar neex na ma dama fi def entreprise xam lu ñu lay waxam mhm. entreprise bi soo ko defaree ba pare soo koy defar doomu Qatar mooy yor 51 pour cent donc moom muy moom moom ngay jiital yaay wut doomu Qatar bu la neex nag yow nga topp ci donte loola cinquante 51 pour cent bi du doon capital bu waaja moom danga koy fay nag léegi yow par weer ndax ndax ndax moo la jëmmal daal en tant que euh, doomu réew ma mais loolu xam nga dañu koy def pour ëllëg problème su ko waaji na rey am wala yàq réew ma wala yàq entreprise bi doomu Qatar bañ jiitaloon nangu entreprise bi ne ko doo ko fi yàqee mm-hmm. kon sa économie mais doo ko sànni tey marocain la ñuy dégg ginnaaw suba ñu ne turc la après ñu ne ab ay chinois après ñu ne ay français israélien mais finalement ñun waa Sénégal dañ naan tocc rek toog di xoole bëri na fi ay entreprise yoo xam ne dañuy tëj dañ ko waxut rek ba ci ñi nekk ci ay BTP maanaam tabax immeuble ak defar tali yow soo leen dee tali jox nga ko chinois yi bi Turquie ko defar aéroport yi ngay yi ngay dégg ñu ba Ndar ba ba ba mu fi inauguré ji woon ay turc ko defar te ñooñu dañoo gagné marché ba pare sous-traité ko maanaam dañ koy gañee ba pare. ne mm-hmm. benn sénégalais kaay dóor ko. waaw ma fay la xaaj ma fay la xaaju xaalis bi sax xam naa noonu lañ koy defee parce que ka ko def ndar xam naa ko. même même euh, université bale noonu la demoon presque. waaw kon nag dafa mel ni daal man du question xaw ma xeeb suñu bopp la xaw ma ay nit ñoo xam ne comme li ma waxoon ci njëlbeen ba rek xëy na ñoom liñ bëgg a diil. Mm-hmm. bëgguñ ko mënuñ koo wax a waa réew mi. <laughs> léegi nag wax kooku tubaab. akub chinois dafa xaw a gën a yomb. waaye ñoom ñoo dañoo am fulla gi nga soogente ne dem nañ ba xam ne lii moo ne sa bopp bi luy jar junni fukki junni lañ lay wax fukki junni lañ lay facturer ne la comme que da nga bëgg yow junni wa comme man wala ñaari junni. def ko fukki junni la koy def kon ñu ñu yàqal lu bare bare bare ba pare na sa xal sunu koom. amul tegawul ci ci benn garantie ne réew mi. am na ay entreprise ndax benn bu ci nekk. Mhm. bul bul bul yéemu xëy ñu ne la ponkal mi daanoon ana wari. Mhm. ana ana defar ko to xaalis bu bogaan gay dani ba xaw ma nu mu tuddati. jooni jooni ana jooni jooni lu leen daane. parce que fi leen état bi waroon dimbalee da ko rocci jox ko keneen ndax booba ay étudiants yi dañ leen di fay bourse à travers ay jooni jooni ku wari. Mhm. mais ñooñu ay sénégalais lañ. doo jox marché bi. Hmm. fekkonte ne jox nañ leen marché bourse Sénégal nga xam ne y' a plus de cinquante mille boursiers wala cent mille boursiers hmm. mais loolu fekkente ne ñi ngi koy fay ñoom lañ cey am doy na marché di. jarutul sax nit di ñëw naan defal ma wari wala defal ma jooni jooni. Hmm. mais dañ leen a sàggane seetaan leen xool leen daanaka dañ leen a bëgg a daane parce que xamati bi soo dem nga ba naan di wàññi say xarit. ah kii ci la bokk kii bokku ci alors que ñun ñëpp ay sénégalais lañ mhm. te ku ci bokkul nga tër ko mhm. ndax état dafa bëri doole d'accord mais mais mais professeur tey euh, ci côté économie kon Sénégal économie réew mi Sénégal ŋàbb ko ci loxoom mel na ni ŋàbb ko ndax ciment bi moomuñu ko téléphone bi moomuñu ko mhm. usine engrais bi moomuñu ko distribution ndox mi usine suukar ba moomuñu ko ndox mi jaay nañ ko Eh, lu fi des usine biscuit. géej gi banques yi moomuñu ko. géej ga jaay nañ ko. léegi lu fi des usine biscuit. te usine biscuit sax wóoruma ndax moom <laughs> gi nga bouillon yi ñuy def ci togg yi jigéen ñi. Ah. am naara ko moom. mais lan mooy problème bi professeur. donte mën nañu wax ne naar fi la juddoo xëy na sénégalais la nag quand même. mais lan mooy problème bi professeur. problème nag ñaar la. benn bi état bi mën nañ ko euh, ŋaññ. comme quoi xam la wala dañoo bëgg dañoo nekkul ay bëgg dañoo moo tax ma ne ñaar la benn bi xëy na état mën nañ ko ŋàññ ci ñàkk encadrement ak ñàkk dimbale doomu réewam maanaam maanaam da leen a jàppalewul pour que doomu réewam dañ koy bañ a yitteel te état bi problème yi mooy mënoo ne mënoo ne euh, ñàkk ñu xam-xam ndax ay professeur waaw mais waaw waaw mais nag ñaareel ba mooy ñu nit kenn dañu war a wut ndax dangay gis Sénégal boo xam ne au lieu nga def usine biscuit 500 millions mu dem tabax kër almadi 2 milliards ñu nit kenn dañoo rawut Sénégal yu bëree bëree bëri bari liggéey euh, xaw ma dañ ko xamut xaw ma dañ ko ragal xaw ma wane seen bopp daal ci oto bu rafet ak oto su jëlee 80 millions 80 millions boulangerie la. waaw mais mais professeur ñu bari tamit dañuy wax ne tey boo nekkee fii euh, ci Sénégal am na ay entreprises yoo xam ne boo ko ba nekk doomu réew mi état bi li muy nangul entreprise étrangère du la ko nangul. <coughs> loolu laa ne la am na pàcc boo xam ne état la état dafa war a encadrer dimbale. Mm-hmm. tey. chômage bi toll na foo xam ne nii état bi mënoon na ne entreprise bu bees bu ne. Mhm. te sénégalais euh, defar ko may naa la juróomi at doo fay impo ah, waaw. yu mel noonu daal. waaw wala entreprise buy dem bay daanoo état xam ne yow mii. Mhm. da nga def erreur état soqali la boo kee nga fay. dama ne xale yi su ma déggee ne ab entreprise mi ngi daanu. waaw donte ñaar fukki nit ñoo fay liggéey laa wax de xam nga loolu lu ndaw a ndaw a ndaw a la. dama dama la koy misaal ci tremblement de terre ab village. boo xam ne dañ ne e village bi de tremblement am na fa suuf sa màbb na ñëpp dee nañ imaginer catastrophe bu toll noonu entreprise da koy xool nii nit ñi di gis xaalis man su ma koy xool social ba laay gis nit ñi fay liggéey donc suñu ne ma entreprise bi nga am problème rek man maa ngi xalaat ko am 45 ans fan lay jëlati liggéey am na ko am 52 ans à la traité gul mais âgé na pour réew mi déjà liggéey dafay amut donc imaginez ay paa yor seen kër takk soxna yori doom yor seen teraanga kenn yërëmu leen nga xëy xëy mu am 45 ans nga ne ko roset sànni c'est extrêmement grave yooyu état yi dañ ci war di taxaw def ci seen kem kattan ba fexe ba dimbale entreprise ba dimbale waaja ndax ndimbal aussi sa bopp la ndax état sa yoon chômage doo am ba nga xam ne ñooñu kenn leen dàq te loolu du lay maye sax bor lay doon man nga ko subventionné ci lu ko yëkkati man nga ko dimbale garantie ci alal ju ñu koy jox pour mu jógaat loolu lépp pour entreprise bañ daanu yooyu ay ay ay sew sew la rek yoo xam ne nii euh, li koy ëmb mooy yërmande. d'accord. jërëjëf euh, professeur Meissa Babou di économiste di jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop Ndakaaru tey moom la ñu invité euh, ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM euh, professeur mhm. état bu Sénégal dafa ne budget 2023 bi 6400 milliards mhm. mais dama la lire ci benn journal fan yële nga ne chaque année ñu ne yokk nañ budget bi waaye du am benn impact maanaam benn jeexital ci dundu askan wi lu tax nga wax loolu waaw xam nga <laughs> Euh, toujours 500 milliards lañ commencé cent mm-hmm. ba Ablaye di dem Ablaye di yokk di yokk di yokk ba ba muy dem defe naa mi ngi ci 2700 milliards. Mm-hmm. Macky ñëw continué noonu rek at mu jot nga dolli ci 500 milliards at mu jot nga dolli noonu noonu réew yëpp noonu lañ tëddee. Mm-hmm. mais ñàkk jeexital bi ci askan bi mooy booba ba léegi soo ci boolee sax ba ci nguur Ablaye Wade ndax chômage bi moo ko daanee. Euh, soo boolee nguur Ablaye Wade boole nguuru Macky daanaka da ngay am ñaari ñaari douze ans. muy presque vingt cinq an yoo xam ne nii réew mi daa gën a ndóol mbay mi gën a daanu. lig liggéey amut géej ga gën a dee sàmm gi yàqu. waa ana budget bi léegi nag budget bépp ñu jël ko suñ ci tabaxul aéroport def ci port suñ deful port ña ngay def ña ngay def tali waa léegi kan mooy suqali mbay mi kan. alors que mbay mi soo ko suqale woon. tey un million xale yu ne fii yor mbuusu tàngal di jaay te amuñ ci dara ñàkk pexe doo nga leen fi bàyyi muy marché ambulant un million xale soo soxaleen mbay mi ñor fa forage di bay noor di bay nawet ñibbi nañ ndax xam nañ ne bay jaay ko moo ëpp fopp solo lii ñuy def géej gi bu ko xeeb gi nga suñ ko defaroon bañ koo jaay nii ñu ko yàqee un million laa la wax ci xale encore ci ci ay nit encore diggante kay nappee kiy jaay ci ki koy génne ki koy yóbbu ba marché Touba waaw ba ca marché Touba ak Mbàkke gee ma dëkk mhm. un million de personnes lañ gis nga kon chômage bi chômage bi pour non attends gouvernement mënu taxaw naan damay suñu ay DER ay nangam sangam chômage bi loolu yóbbu ko économie ci doxam mhm. la kenn ku nekk war a gis boppam am ci sa wërsëg par rapport ak métier ba ngay def ah ñii ngi yanu ñii di dóor ñii di gas ñii di jàngale ñii di faj et cetera mais foogante ne nag yow place yi nga xam ne place laa wax yi nga xam ne fa la liggéey dëgg dëgg dëgg war a mën a amee muy mbay di sàmm di napp fekkante ne place yooyu dañoo dee waa ana ñoo doon bay réew mi nag réew réew mi nag ku ko xam-xam ne nag xam ne nag réew mi <laughs> lu mu dee dee dee soo cinquante pour cent yi ah. ay béykat lañ ah, soo ci tegee ay ay dix quinze pour cent nappkat yi ak sàmmkat yi mais soixante dix pour cent ñooñu ñëwul bëti ku nekk ay artisan gi nga maçon yi ngay gis ak yenn mécaniciens yi mm-hmm. ay béykat lañ de wala ay nappkat wala ay sàmmkat métier ma doxatut ñu ñu ñu daw fu fu fu ñu di dawal rek Jakarta Jakarta mais pour seen budget bi mooy foofu laa jëm léegi budget ba ñoom ñooy def seen i choix maanaam ñooy tànn man de suñu ma ko joxoon dinaa at mu jot trois cent milliards laay def ci bay def lu mu gàtt-gàtt deux cent milliards daanaka ci càmm gi te dinaa def kon lu mu gàtt-gàtt deux cent milliards ci napp bi santé bi ma def ci deux cent milliards euh, école ma def ci deux cent milliards daanaka kon dinaa jël junni milliards par at junni boo xam ne ni indi uniquement dama koy jëmale ci nit ñi mais doo xaar bañ xiif mburu war a jar deux cent nga ne nga ne wàññi naa leen ci juróom. waaw mais mais sànq euh, professeur yaa ngi wax ne dañoo yàq géej gi xam nga tey yàq géej gi yow yaa ngi jaay géej gi mais problème bi mooy man dama gis benn rapport boo xam ne pêche illicite bi. Ah. mooy napp bu jaarul yoon bi. xam nga napp bu jaarul yoon mooy manque de contrôle bi nga xam ne am na ci géej gi. sinon euh, waaw léegi même sax tey rapport boobu. Mhm. Euh, coalition euh, mu ngi tudd coalition euh, de la transparence mhm. financière ñoom sax dañ ne si Afrique de l'Ouest mhm. plus de sept sept sept sept mille mhm. sept mille milliards la Afrique de l'Ouest dafa ñàkk mais Sénégal kese ma ngi ñàkk at mu jot cent cinquante milliards ci pêche illicite waaw foofu la xam nga pro ñun ñun da ngay dem a jàgg naan Axel Kabu danaan wax daal di leen benn téere tudde ko l'Afrique refuse le développement. waaw maanaam ñun daal ñun ñun ñun. ñoo ko ñëw soxali ko ñun ñoo ko tey. <laughs> ndax tey Facebook yow mu wóor ne Sénégal tey soo soo doon compter ñaari ressources yi mu am yi ci ëpp doole danga naan bay ne sàmm. ne ne ne ne ne napp. napp bi yàlla moo ñu jox géej. 700 kilomètres. lépp di ndox moo xam ne ni foo sànni jàpp benn jën. Mm-hmm. Ah, waaw. ma dem ba for ci woyu bëy woyu bëy ñu ne stade Abdoulaye Wade bii ñu inauguré géej gi lañ leen fayee napp leen ba doyal <laughs> loolu du musiba boole kook ñeneen ñuñ jox ñeneen ñuñ jox ñeneen ñu jox ba nga xam ne ñun amuñu matériel bi ñoo ñu yor ñun dañuy joow ba léegi ñee nappatuñu dañuy pompe pompe mu mu muy manq day manq di manq lépp lay manq jën ak jaan yi ci biir ak lépp lay manq kuy manq ak kuy joow <laughs> mais mais <laughs> <laughs> yow xam nga ne xam nga ne loolu ko loolu du combat. te Chine ni mu toll ku leen bëgg a joxe jën. non mais professeur. loolu du combat non cent 150 milliards dama ko xool euh, c'est trop pêche cinq 5 150 milliards mais 150 milliards at mu jot mën naa tabax cinq hôpitaux cinq hôpitaux yoo xam ne 30 milliards la. waaye waxuma la sax tabax mais dama li ci gën a métti du tabax du sax ñun xaalis bi ñu perte man xaalis bi ma mais nit ñi bàyyi ñi bàyyi napp xale yi bàyyi napp dugg ci gaal bi dem Espagne di dee ci yoon. waaw mais pêche illicite tax ñu bàyyi. mais foofu laay jëm dama ne la man xaalis bi ñu perte man du sama problème man su ma xoolee ne jaay géej gi ñu jaay li ma ci gën a métti mooy gone ak lébu goo xam ne nii ngoon gu ngoon gu ne laa la wax de. Mhm. xale boo xam ne nii amul vingt ans daana am quatre cent mille ci poche gone goneg lébu musul faale kenn kenn sama benn xarit ndeysaan daana ma tooñ naan ma fexeel ba bul bokk ak ñoom ngoro ndax liñ man mënoo ko mm-hmm. géej gee neex mais mais professeur euh, si sa biir euh, keroog bi ma liiree aussi gis naa nga wax ne ñun suñu budget bi dafay am ay investissement yoo xam ne parce que ñun investissement yi ñuy def euh, maanaam au lieu que ñu def ay investissement yu baax dañuy jël xaalis bi mu nekk fonctionnement de l'État Euh, fay si ay salaire waa xam nga euh, d'ailleurs banque mondiale mi ngi xuloo hmm. actuellement ak état du Sénégal ñi ngi jàppante ci euh, dinaa jël xaalis lu toll ci 700 milliards def ko ci courant bi pour subvention ak suñ ne énergie nag léeg-léeg dana doon courant léeg doon doon essence hmm. banque mondiale nee na ko du ci daal ndax yow say bor daa bari hmm. da ko waxoon ñaar benn bi na nga wàññi say dépense yow état du Sénégal état du Sénégal ñëw yokk ministre yi 38 ministres. Mm. mel ni ku leen di ñaawal. ñëw yokk budget assemblée nationale dolli ci 3 milliards. budget HCCT mu yokk ca 1 milliard. Mm. ak yeneen ruq yoo xam ne leen na ma ne ñu ngay dóor fu ne ñu yokk fa 1 milliard. Mm. te nee na leen wàññi leen seen dépense. da ngeen maa yoral bor. wàññi leen seen i dépense te yokk seen xaalis. waaw ku yokk xaalisam dana maye 700 milliards subvention mooy maye xaalis. Mm-hmm. wàññi say taxe wàññi du waaye mm-hmm. waa léegi état Sénégal fu mu jëlee xaalis. après nga wul ko dem budget budget bii rek li ñu ciy leb ci xaalis dana toll ci deux mille milliards. waaw waaw ndax ñun quatre mille milliards la ñu am biñ ñoom bi ñu defee seen i ñoo ko def. Mm-hmm. ñu may ñu trois cent milliards. budget bi des deux mille milliards. Mm-hmm. loolu bor la dañ ko waral warale bi nag laa wax. banque yokk ko si bor yi ñu am. mais ñoom ñoo ne six mille milliards te amuñu ko amuñu six mille milliards ñun ñun soo boolee douane baak impôts yi ci réew meeg 4000 mil nee nañ ñoom loolu la ñu wax de 4000 milliards ci économie boo xam ne doxut. est que mën na loolu ñu ah mais justement loolu tamit ñun dañ leen di nangul rek. non ndax ndax douane euh, douane 1000 euh, milliards lañ fi génne woon. dana ko ëpp sax xam naa ne mën naa dem ba ay deux cinq cent milliards. Mhm. mais 4000 milliards laa jàpp ne te cinquante milliards cundum lañ am ci petrole bi. kon nag fu xaalis bi war a jóge man xawma ko ñoom ñoo ko bind seen i bind. lii nag daf ñuy yóbbu souvent ci. budget boo xam ne ni c'est pas réaliste maanaam euh, budget bu euh, dafa bëri tap voilà dafa budget tappale la quoi ak wax ju bari léegi nag suñ demee ba ba ba décembre nii di jot suñ xoolee liñ jot dëgg liñ def dëgg euh, day am différence su léeg-léeg quatre cent milliards wala mën na ko mën na ko sax ëpp ci ne loo xam ne xaalis boobu duggul duggul comme bi doxut ku daan jënd ñaar benn ngay jënd kon eh, impôts yi faw day wàññeeku. waa mais professeur tey euh, ndax boo xoolee daaw xaw ma daaw jéeg ñoo ngi doon wax seen euh, seen déficit budgétaire bi ay 700 milliards tey ministre bi dégg naa ko nee na plus de 1000 milliards plus de 1000 milliards moom mën naa dem fenn fu nekk léegi ñun sunu budget euh, état bi daf koy faral di ndamoo. 6400 mhm. milliards te comme ni nga ko waxee sànq ñun ay recette fiscale ay impôt euh, ñaan tàllal loxo ak leb euh, te li ñuy leb sax ak li ñuy li ñuy may presque boo xoolee mais loolu est-ce que jar na ndamoo nag comme ñoom ni ñu koy tawee nii. waaw dañuy politique loolu marketing la tudd. Hmm. dañuy politique dañuy jaay seen bopp. maa def lii c'est la première fois c'est la ba première fois booy première fois bu ñu la wax ne la lii moom mi ngi doog am ci réew mi. Hmm. yëfi dof la. surtout dul surtout dul teer. Hmm. tudd leb yu bari leb loolu musul am Sénégal fi ñu toll ni ñoom ba ci Abdou Diouf sax tollu toon noonu si bor yi ah, mu tollu teer bu seere bi bu seere nii amul amul ci àddina mais mais ce que xam nga suñ bor yi day gën a yokk be mais day yokk BRTB négal bañ pare bañ wax la ñaata la aéroport yi ñu doon defar di wër di defar aéroport yow sa mbay mi soble bi donc munoo munoo defar magasin bu mu dugg ngay réparer aéroport waaw mais professeur dama déglu benn su mu ne fi nga xam ne moom la réew yi war a yem ci leb yow moo natt ko. maanaam Sénégal romb nañ koy dem. 73 virgule 8 te 70 lañ ñu wax maanaam doo boole boru bitim réew ak boru biir réew bi 60 banque mondiale ko wax de rapport la. Mhm. da man waxuma ko. 70 <laughs> pour cent bi ñuy wax romb nañ ko. loolu nag xam nga gone gu gu xaw ma tërëdi li ñuy wax xaw ma koy xaar ca taatu ndaa la gone gone nee nañ da koy xaar ci taatu ndaal dana naan si léegi nag soo defee nii ba banque mondiale semaine bi muy xuloog ñoom ne leen bor yi dafa bari bàyyi seen subvention yi munul ne te ñoom dañoo ne ci élection mm-hmm. lu ne la leen jaral même bourse familiale pourtant FMI waxoon na leen ma ne leen lépp lay tasaare réew mépp la ñuy tasaare ci élection yi ñu jëm nii lu leen neex la ñuy def nu réew mi mel après seen seen yoon nekku ci loolu moo garaaw te suñ continuer la daloon Abdou Diouf moo leen daal muy ajustement stru structurel maanaam Abdou Diouf bi ko loolu dabee amatul xaalis xaaj ba gars yi ne ko projet yi dara doxatut banque mondiale bi mu ñëwee dana ko ajustement ajustement mooy jaayal onkat mu jaay jaayal Senelec Senelec dañ ko jaayal Abdoulaye Wade da ko jëli ci ay canadien mhm. jaayal ndox mi ci la SDE ñëwee mhm. poste fi rëcc ja téléphone bi dañ koo jaay Sonatel ñun ñoo ko moomoon poste ko moomoon. kon dañuy mi. loolu la cest à da dañu ñëw ne Abdou Diouf yow comme que dangaa bëri bor mënatoo koo fay. mu daanaka mënoo liggéey kon lépp lu état dañ lay futti <coughs> suñ la futtee te xaaral ba euh, xëy na du yàgg du du ma ko waat nag mais nga post bi ci jaay nañ ko lañ jëm Senelec xaaj bi ci jaay nañ ko lañ jëm. loolu lépp ñun ñoo ko teg suñu bopp mooy ay nguur yoo xam ne nii xamuñu limite maanaam ñun suñuy wax ñun ñu jàng science ne lii fii la war a yem lii soo ko nattee baaxut ñun faalewuñ ñu su ko defee nga bàyyi lañ ñu tëñëx tëñëxi lan mooy bourse familiale mais baaxul c'est-à-dire que am na koo xam ne xay na dana toog ci grand place atum yàlla du am 5000 d'accord d'accord mais loolu bourse familiale rek loolu problème am benn vingt cinq ñetti weer ba ñetti weer mais kooku yàqub xaalis la soo ko dajalee woon am na neneen noo ko mën a def ba dimbale koo ko muy liggéey am salaire par weer d'accord moo gën bourse familiale mais mais mais professeur euh, lu jëm ci wàllum dundu gu cher gi waaw bu Sénégal nee na euh, daf ko bëgg regle régler bëgg a régler loo xam ne nekkul ci say loxo est-ce que dina nekk lu yomb ci ci tàng-tàng bi de moo mun a munta nekk même bu paasee dund gi mooy yeneen njëg yi yeneen. produit yi ko ah. mënul lépp cest à soo doon lim tey na gaz na suukar na ceeb na diw na nangam sangam. Mhm. soo wutul da nga sa baaraam yi da nga def fukki fukki baaraam. Mhm. yow fukki baaraam bu dee ne baaraam bu ci nekk dafa taxaw ne la soo bañee am soo bëggee ma arrêté prix bi arrêté nag laa wax jox jox ma kilo cent franc nga calculer juróom benn weer yi rek wala ñetti weer yi soo calculer dem 40 milliards nga bëgg koo def ci ci ci juróom benn ne. mënul ne ñaareel bi fañ jëm xamuñu ko de ndax ñun comme que liggéeyuñ luñ bayuñu luñ lekk. Hmm. liggéeyuñ lu ñu naan. ceeb ñu ne dañu dem Inde négocier ko xanaa xamuñ ne Inde dafa inondé. Hmm. ceeb du fa génn déwén. dañu mbay ma yàqu na million de un million cinquante tonnes. la ñuy jéggaane lañ lañ lañ importé ren. mais mën nañu koo sóobu bàyyi ko fii ci réew mi. ah waaw loolu yàqoo say wax. waa léegi man nañ ko nag professeur. ah waaye ñi ñi yow sa ñi gën la ko xam. mais xam nga ne man nañ ko. am nañ suuf si. am nañ xale yi. am nañ xale yi. am nañ naaj bi. am nañ naaj bi am ndox mi. waaw xale yi am nañ courage dañoo bëgg a liggéey. waaw xaalis moo ñu manqué. waaw ku man teer 1000 milliards munoo munoo munoo def ci bay 1000 milliards. léegi ooy la problème. Ah, laa koy laaj. déedéet man kenn ko laaj professeur <laughs> yàlla xam te xaw ma ko <laughs> xam nga lu la fàng. Ah. kenn du ko jeex man xaw ma ko kat. mais président ñi dégg réew cuune moom duma ko wax kenn ndax ay cadre lañ. ay cadre man du ma ne kenn cuune nga. waaw cuune ñu de. Mhm. lii ñuy def intelligence bu mat sëkk lañ koy defee. Mhm. moom kay dañ koo booral. mais ñoo la gën a xam li mu laaj. Mhm. xam nañ ko de. accord jërëjëf euh, professeur Meissa Babou léegi nag euh, leneen la ñuy wax moom dañuy génn ci wàllum nag économie. ndax nag euh, citoyen sénégalais nga am xalaat ci réew mi. lu jëm ci élection 2024 ñu bari. Euh, ñoo ngi wax waxum troisième candidature président Macky Sall. Mhm. ay ñooñam ñoo ngi ko si pousse. Mhm. ñenn ñi jàpp nañ ni buñ ko fi yëkkatee Sénégal mën naa dugg ci musiba yow lan moo ci sa xalaat. waxi dof la de troisième mandat. Ah. waxi dof la ndax nag euh, du sax droit français la. Mhm. nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs maanaam kenn. yoon mayetu la nga def ñaari mandat yu teg yu ëpp. Ah. ñaari mandat du ma président Macky Sall taxaw ne euh, waxoon na ab Ablaye nodd xaw ma julli gi ñaar rakka la. kon da ngay sëlmal par force. taxaw da en 2019 ne ma maa ngi dem ci élection nag suñ ma falee xam leen ne jeexal na waaw waaw waaw waaw Madior Fall aussi. ñoom ñu ci bari. waaw nag wax dëgg yàlla nag nañu xam dëgg nag nguur dafa neex de. mais lu neex neex neex neex neex. da nga cay euh, vraiment ëllëg. ndax nag. nu mën di demee nu mën di demee rek réew mi ñoo ko bokk. ma jàpp ne lii société civile bi wax démb ci benn réunion. ne jàmm gën. jàmm gën troisième mais loolu mooy dëgg. gis nga troisième mandat bi lu tax ma ne la yëfi dof. bis buñ poussé le président Macky Sall. ba mu jëm cee dugg. waaw ñoom ñëpp ñëpp ñëpp la ñuy tër. ndax dañuy dañuy taal réew mi. réew mi ku ne fi troisième bala ngaa eggale. la fi xewoon moo fi xewaat. mais day xeex day am xeex. Hmm. day am te suñu xeexee booy taal réew mi nañ ko wax. ñëpp dégg ko ba nga xam ne moom ñoom risques yi ñu bëggal réew mi waxuma seen bopp. ndax ñoom am na xam nañ fi ñuy rawee. kenn du leen fekk. hélicoptère la ñu dugg ñoom ñëpp fanaan. kon jàpp nga ne bu président waxee kon jàpp nga ne bu président waxee day nekk candidat euh, coow mën naa am. ñu taal réew mi nga naan coow day am. <laughs> raay raayal bi nañ ko bàyyi. ñu war a wax nañu wax. su ñëpp. société civile wax na parti politique yi wax nañ ñi nga xam ne ne journalistes yi nga xam ne ils sont responsable nag laa wax mhm. wax nañ mais même kilifa yi kilifa yi laa wax de lañ wax wax nañ ko ñoom diine xamul wax waxeet te nag sëñ bi sëñ bi sëñ benn sëñ bee ko waxoon nag sëñ bu ndaw bee ko wax léegi sëñ sëriñ su mag yi sëñ bu ndaw bi nag yaa waxoon nag <laughs> waaw wax dëgg yàlla mais <laughs> ah, ah, ah, gor ca wax ja la ba sëñ la waxoon rek kon nag man jàpp naa ne jaru ko jaru ko pour l'intérêt du Sénégal lu leer laa la wax jaru ko pour l'intérêt du Sénégal mais sama xel dafa dalul parce que président Macky Sall voté na fi te yorul carte la bëgg wax foofu daf ko forcé ah forcé loolu tax sama xel dalul waaw mais dama dégg Alioune Tine ñoom nee nañu réew yi forcé troisième mandat yëpp après ci dañu mujj nekk ci kawo waaye kawo mooy taal nañ réew ma kawo mooy booy toj nañ lépp rajaxe nañ réew ma li fi xewoon le 3 mooy xewaat. mais très clairement. waaw mais mais Sonko moom ñenn ñi. jàpp ce n'est pas Sonko. waaw la république réew mi la attention. du Sonko réew mi moo nangu suñ doon la deuxième mandat lañ ne Sonko na génn leen kenn ñëppay lànk. Sonko génnewul nit ñaa ah. nit ñi Sonko moomu leen. réew mi ci boppam moo am lu muy bañ. am na fi nag. waaw non naatalewu ma doole maa ngi koy nuyu au passage euh, ku baax la waxuma loolu de dama ne buñ baatal Sonko réew mi moo am lu muy bañ. soo ne damaa doon candidat ñu taqal la bëgg laa tëj ñu def Karim Wade réew mi génn lànk. mais kaawu Karim Wade ak euh, Khalifa Sall. Euh, euh, booba gars yi comprendre luñ dañ ne Karim Wade demande sociale la ñu ne ah waaw ndax ndax ndax réew mi ku fi sàcc dañ ñu tëj la nag ku ne wax gars yi di soog toog di seetaan mais liñ gis dalul suñu xel ñu xam ne lii yëfi triant la yëfi politique la. ñu ne déeta waay ñu ñu ñu teg ci kari Khalifa Sall gis nga niñ ko jaarale assemblée député taf tafee ko def ko ci kaso bi tëgg leen ñoom ñaar ñëpp cinq ans ne leen bokkatu leen ci élection dindi sànni waa réew mi nag daal di yeewu ne lii du fa amati. professeur euh, Meissa Baba léegi tey ku mel ni Ousmane Sonko euh, bu ñu ko bundaxataaloon tey euh, ngir mu bañ a bokk ci élection yi lan nga jàpp ne mooy am. ñu xeex il faut sa battre gis nga lu dul dëgg lu dul dëgg réew mii dootuñ ci ànd. c'est pas parce que dafa tudd Ousmane Sonko mais dëgg gi la réew mi na léegi xale yi ñoo mayeetul. ku ne naan maay président wala maay ministre lu ma nex soo fi signé këyit te waroo ko signé réew mi yëngu donc ñun ñëpp a yem ci réew mi kenn ëppalewu ci kenn nañ teg lépp ci yoon démocratie la ñu wax mhm. diw du bokk ci ay élection fan nañ ko teg ñoom dañoo gën <laughs> ñoom ñooy kat dañ ñoo ëppale fii ci réew mi wala dañ ñoo dàq jàng il faut qu'on arrête ça ñëpp jóg nañ nag ñëpp a ngi alerte ñëpp laa wax de képp ku bokkul APR yaa ngi alerte te même ñenn ca biir APR xaaj baa ngi alerté kon nag man damaa defe ne wërëw a dem na këng kon yow da jàpp ne Ousmane Sonko bu ñu ne woon doo dem ci élection jafe-jafe mën naa am. mi nga naan jafe-jafe du jafe dañuy taal réew mi. ñu la koy taal. waa réew mi parce que dañ dul nangooti nee naa la ku ñu noot ku ñu noot mooy diw du doon candidat te diw boobu nekk yaa tey jii ba fii may wax ak yow nag laa wax. Mhm. moo moo fi sës. mais bu dee yoon la nag. yoon waa yoon ban yoon amul benn yoon bu mën a tey Ousmane Sonko nekk candidat amul amul de. Hmm. amul benn yoon bu mën a tere Ousmane Sonko doon candidat. ban dégâts la fi def ban dégâts la fi def léegi ñu léegi ñuy wax affaire Adji Sarr xaw ma yu kenn ah. xamul yooyu. Ah. mais wax wax docteur bi loolu lan la bind. gisoo ko gisuma ko. Ah. keneen gis ko. Hmm. kii sëq sëqut ak góor. waaw mais wax wax ji du farankulaayu. xoolal bu ñu fontoo bu xoolal suñ bëggee ñu taal réew mi. Hmm. aja bisimilah xam naa ne man sama kër kenn du ko lakk. man moom man man moom man moom suñ ko doon taalit defuma ci réew mi lu ñu may taalaale. <laughs> ku ku ci taalaale nag sa affaire la. jërëjëf professeur ñu lay sant gërëm. Ah, xanaa léegi ma tàggoo ci ñaax rek ab Khadre réew mi ñoo ko bokk daal. nañ rafetoo. gis nga nekk nguur jóge ci nguur dikkaat loolu amul problème. nee naa la teraanga weesu wut ñu tànn la seen le di la fay juróom million par an lu mat fukki at. Ah? Mm-hmm. gënoo nit ñi. su la yàlla war sëgalee lu toll noonu nga am daraja bi foo dem ñu ne waajaa ngi mais doy na ci teraanga su dee gor laa wax de su ko defee ñu rafetoo nangu yoon kenn ku nekk ci ñun ñu nangul la li la yoon may Sénégal jëm kanam je vous remercie jërëjëf euh, professeur Meissa di ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru moom la ñu invité woon tey ci samedi ji seen émission euh, pencum réew mi muy am samedi bu jot 15 heures jàpp 16 heures ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck jërë ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm